Sénégal flowers and it, you were so beautiful, you were so smart. From Finnegan, you were so beautiful. Seydi Afrique yes Seydi Seydi Seydi Seydi yes yes You're so beautiful, you were so smart. Raphael, again, you're so beautiful. can't hide. ñun Miss Ndar bi la ñu àndal waaw ah, Maymuna Gladys Maymuna man maamam laa waaw maamam laa ñu ngi jógee ba Daxaar Bango Maymuna Daxaar Bango la juddoo yaayam fa la juddoo ay maamam fa la ñu muy xale bu yaru nag xale bu baax yaayam baax na ay maamam baax nañu donc dañ koy yéene tey mu jël ndam li yóbbu ko ndar ñu feete ko boole ko suñu parrain bi monsieur Mansour Faye ak marraine bi madame Diaspora ñun waa Malika war nañu am seen taxawaay pour ñëw soutenir ko tous les moyens nag si suñu am-am suñu doole suñu xalaat à peu près bàyyi suñu te yëpp day jël nañ ñetti saar pour ñëw fii. jóge commune Malika ñëw fii suñu maire délégué ñu Momar Talla Gadiaga mu ñëw pour dooleel su ki nga xamante ne mooy suñu jël Sow nga xamante moom la am. juddoo yaroo fa màggee fa macha allah représenté Miss Matam waa Malika yëpp nag ñëw derrière le maire Momar Talla Gadiaga. Ndiaye Diallo mbiyeteemi euh, ngummi mi ko Matam juste pour wadde soutenir Miss amen oɗo minen ɓe fof hamina ɗo ene guila kihiɗo juste pour yiide ene woodi wonɓe caggal makko jarani komo huula minen ɓe foof hamin ɗo ene juste pour waddemo soutenir ñëw fii fas yéene supporté sunu Miss Saint-Louis Maimouna Jules Clarisse Ayebois nekk mu rakk bu baax dëkkandoo ak moom ba depuis xale ba léegi ñuy ànd te musul ñaaw ñëw fii nag fa yéene ko supporté mu jël ndam nañu ànd yóbbu ko ndax. déedéet ah, ah maa ñaanal pour mu jël Miss Sénégal rek di ko rek. waaw incha allah da nga jël. bëgg rek mu gagné waa Fatick lañ jógee ba Fatick ñëw supporté si daa aay daa rafet ñu am confiance ci moom. ah Monica moo dàq ci Sénégal xanaa gisoo ko moo leen dàq moo leen gën a osé moo leen gën a coquette so, so. Christmas. fosse o bem. international de Dakar, amis chers téléspectateurs. Quel plaisir de vous retrouver, vous l'attendiez tous. La grande finale Miss Sénégal Nouvelle Vision, ici au Grand Théâtre National de Dakar. C'est avec un immense plaisir que nous sommes là, juste pour vous servir et vous donner le maximum de plaisir et d'ambiance. Eh mais, eh, mais ñun ñu ngi toj dëkk bi nekk te yëguñu ko de. waaw mais lii nu mu demee nii yow. waaw mais xoolal sa sañte gis nga sa bleu ba fa muy reflété. rek. dama ne xam naa xam naa ni Miss yi xaw ma lu ngeen nar a sañse tey waaye ñun ah, gaañ nañ leen de. barki yàlla mais naka mu nag Eva. ça va Kheucha j'espère je vais très bien et toi. ça aussi et soirée ta journée. dama kontaan. non mais gis nga décor bi depuis tout à l'heure ñu ngi wane ambiance bi nekk ci biir. Ah, euh, ah. ci biti te sax ci salle bi. t'as vu et Kheucha est-ce que xam nga ni ci biir mu ngi wàcc ba zéro. non mi ngi mel mais actuellement. man en fait dama ànd ak benn euh, émotion en fait. Mhm. parce que xam nga élection Miss c'est pas facile. c'est te élection Miss dafa nekk loo xamante ni concours la. te concours bu nekk yaa ku Miss bu ci nekk yaa ngi xaar gagné. Mhm. ku gagnéwul ku ne di nga jooy. ki gagné sax fu mu jaar dina génn larme. wa waay waaye foog ñu xam ni un concours reste un concours. waaw c'est vrai et que lépp rek ci fair play ay xale mhm. lañu. ñoom ñëpp dañu bëgg mode dañu bëgg culture. yàlla dogal ñoom ñu nekk ci euh, région yi nga xamante ni jóge nañ fa les euh, quatorze différentes régions. ku yi ku ci nekk ci ñoom euh, gis naa seen euh, euh, dundin ci biir gàlle bi c'était autre chose ñoom ñëpp ay sœur lañu seen biir kon tey fair play moo nar a daw fii nga xamante ni moom moo di ci Grand Théâtre National de Dakar Eva ah fair play moo nar a daw mais dara t'inquiète man mii seen yaay seen mag ah. dinaa nekk seen ginnaaw di ah. leen nax di leen tette bu ko defee ñu mën a comprendre ku gañewul rek xamal démérité woo xëy peut-être chance la te xam nañu élection bu nekk dafa et euh, j'en pour remercier euh, euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo di le comité Miss Sénégal Nouvelle Vision ndaxte liggéey bi rafet na depuis lors gis nañu xale yi ñoom ñi ngi leen teg ci ay anam yu wóor waaye itam mm-hmm. l'équipe de la 2STV liggéey bu mucc ay bil liggéey mm-hmm. depuis bu ñu commencé c'est vrai que ni final bi jàppoon nañ ko ci benn date ñu annulé ko ku ne xam na ni ak Covid bi mm-hmm. waaye bi ñu yegg siwaatee boobu ak léegi ñoom xam na ni liggéey bu mucc ay bin ci liggéey donc je remercie toute l'équipe di gërëm yàlla liggéey bu rafet euh, yàgg nañ koo dëgmal waaye bii ci raw euh, ci euh, final bi nga xamante moom moo moom final Miss Sénégal Eva. effectivement Kheucha la 2STV allah la télévision autrement yàgg nay wane boppam à chaque fois fépp fu mu mën dem bu dul ci défilé de Miss yi mu nekk ci làmb gi bu dul ci làmb gi aussi mu ngi ci yeneen ak yeneen mm. kon 2S nekk am na touche bu original boo xamante ne répond à son nom mm. te actuellement gis nañu depuis parce que depuis le début tooguñu surtout la présidente Amina Badiane Camara au passage Binta yéen ñëpp euh, Aminata Bab surtout moom aussi et Neyma aussi notre nouvelle française nga xamante mu ni mooy dans les villages de Sinidindia mm-hmm. ñun ñëpp fekkee nañ ko yaa ngi fa woon maa ngi fa woon gis nañu li fa amoon gis nañu émotion bi fa amoon mais tey lay jeex incha allah ndax sacre bi jot na ce soir gars yëpp a ko doon léegi léegi que de belles surprises tey uh-huh. di ngeen ànd ak le leader de la génération consciente Papa Diouf en live euh, sur la 2STV bu ngeen gisee nag tey euh, lu bare ci kanam baree baree baree bari am na xacha waaye waaye yi ak ñi nga xamante ni ce sont des connaisseurs mhm. les mélomanes xam nañu liggéey bu mu ci ay bil leen mhm. moo tax euh, tey programme yi ñu am ci décembre bi bu ma ko doon lim fii Eva du ñu yeggal waaye ku ne xam na ni miis yi ñoom yi nag tey euh, euh, demoon nañu de ndaxte lépp loo tàmbale lu ne rek day am présélection effectivement c'est-à-dire jour sax doo ko ñëw rek jël ci terrain mhm. di nga ko xool testé ko ba xam am aay naag aayul pour man koo jël donc dañuy dem seetaan yi benn élément boo xamante ni à la ñoom itam baax na ci ñoom ñu euh, nga xamante euh, ku ci nekk ba ngay jógee sa dëkk naka woon yéen ñi toog seen kër aussi euh, continuer leen di wéy di voter ci numéro Miss ci kanam tuuti man itam dinaa ko jàllale parce que déjà yor ci ku nekk sa numéro les votes ça compte toujours kon continuer leen di wéy ndaxte vote yi ñoom am na ci ñoom Eva uh-huh. parce que yéen population bi yéen yéen a mën a seen candidat yéen ko mën a voter cinquante pour cent yi ci des kon seen doole yéen la voté leen seen candidat préféré ayca mi ngoogu si c'est bon à la régie mën nañu dem seytaan euh, présélection bi nga xamante ni euh, Miss Sénégal yi euh, defoon nañu ko ku ci nekk ci sa région yéen itam ngeen mën ko gis waaye itam ba ñu yegsee ci bërëb bi naka la demee si c'est bon à la régie on peut regarder on revient c'est parti are so beautiful, you are so smart. jigéen mooy sunu yaay booy def leen ko ni seen waa je vois que ça va être très très serré parce qu'elles sont toutes belles et ravissantes les Miss est-ce que xam nga ni xale yi dañoo rafet ah mais xëcha présélection bi maa ngi fa ah. man ak ñoom la xam nga c'est depuis le début macha allah moo tax gis naa leen ci anam bu nekk façon bu nekk ndeysaan en tout cas euh, man euh, dund naa ak ñoom gisante naa ak ñoom. Euh, ci ay aventure à la télé comme ci si fa ñu nekkoon fa ñu daloon kon gis naa que li nga xamante ni moom moo di critères yi ñuy wut ci Miss yëpp mi ngi ci ñoom. c'est de très belles filles